bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi xiyaari alanim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell nuyoo bi gën a mat di ci jiital sunu kilifa gu mag gi al cheikhu muhammadul muntaqa di ñaan sunu borom dolli ko sàmm dolli ko wattu te dëgëral ko ba mu yeggale li mu yéene liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal Serigne Touba yéene ko liggéeyal jullit ñi wala sax nit ci boppam lay wax di nuyu bu baax tamit daaira muqaddamatul xidma ci liggéeyu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxaw ci weeru màgg wii ci di dundal ruu yi waaye di dundal yaram yi seen jëf yooyu yëpp yal na ko sunu borom bind ci seen téere bi yiw te yëkkati ci seeni daraja jaare ko ci jëf yu mag yi ñu def su ko defee ni ko sunu mbokk mi doon ubbee waxtaan wi waxee léegi rek waxtaan wi day jataay boo xam ne jataayu xam-xam la kon waree su ko neenal waaye warees naa fexe rek ba njariñ man faa jàll ñu jëloon nag tomb boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu dimbalante solo si mu am ak njariñ yi mu am jeexeet yi muy def ak teggin yi mu am ak yi nga xam ne nag mën na koo gàllankoor ba boo amee dimbalante du am ni mu war a amee bu ko defee dañ koy tënk rek ci tomb yooyu nga xam ne juñu nañ ko léegi dimbalante mooy lan mooy jëf joo xam ne nii ci doomu aadama lay bàyyeekoo waaye am mbooloo ñoo koy séq ngir mën a amal benn jubluwaay bu ñu xam kon mooy mbooloo moo xam ne dañoo ànd ngir mën a amal mbir sàngam nga xam ne nii ànd gi ñu ànd moo leen di boole def leen ñu mel ni wenn say ngir ñu mën a amal benn jubluwaay bu tax ñu jug wala sax ñu wax ne dimbalante mooy melokaan la woo xam ne bu nekkee ci nit moo koy xiirtal ci muy mën a dimbale ñi mbokkal aw xeet melokaan la woo xam ne bu nekkee ci doomu aadama moo koy xiirtal moo koy yóbbu ci muy dimbale ñi nga xam ne ñoom la bokkal aw xeet moo koy yóbbu tamit ci mu mën a nekk ak ñoom bennoo ak ñoom ci ay wax bennoo ak ñoom ci ay jëf ngir ñu mën a àgg ci njariñ li nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk comme ni nga xam ne noonu la ñu mën a àggee ci njariñ li nga xam ne xëy na du tasaaroo ci ñëpp day am ci ñu mu yam kon bu ñu ko doon gàttal mën nañoo wax ne dimbalante daal day doon loo xam ne ay nit a koy séq ngir ñu mën a amal njariñ loo xam ne nii lépp ñëpp a koy bokk bu sottee wala njariñ loo xam ne nii dana am ay benn benn yoo xam ne ñoo koy séq waaye kon mel na ni njariñ du ca mën a ñàkk bu ñu delloo ci lislaam dañuy fekk ne sunu boroom yoonal na ko ci alquran ndax wax na ci téeréem bu tedd bi ne wa taawanu ala al birri wa taqwa nee na na ngeen di dimbalante ci lu baax ak ragal yàlla lépp loo xam ne ni lu baax la lépp loo xam ne day jur ak ragal yàlla muy topp ndigalu yàlla bàyyi ay tereem na ngeen dimbalante ci loolu kon loolu ndigal la loo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sunu boroom jëm ci jullit yépp sunu boroom it waxaat na ci alquran ne wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabr mu ne maa ngi gën ci takkusaan wala maa ngi gën ci jamono ne doomu aadama yépp dañoo perte nekkuñ ci dara ba mu des ñi nga xam ne ñoo gëm tey jëf-jëf ju baax waaye nag ñu yokk ca di dénkante ak dëgg di dénkante muñ ci ak dëgg kon dénkante googu loolu mbooloo moo koy def mbooloo moo koy def kon foofu tamit sunu boroom junj na fi lu am solo muy wàllu dimbalante gi ñuy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it wax na ci ay waxam yoo xam ne ni dafay digle ngir ñu jàng jëm ci dimbalante mu ne unsur axaaka zaliman aw mazluma mu ne na nga dimbale sa mbokk sa mbokkum jullit dee ko dimbale bu fekkee moom moo tooñ nga dimbale ko wan ko yoon wi ñu jaar ba mën a jot ci àqam bu fekkee tamit moom ci boppam moo tooñ nga wax ne ko ah yow kat lii nga def du noonu noonu nga koy dimbale doo ko jàppale ngir mu am ngir mu am dëgg ci kam tooñ waaye danga koy jàppale ci ne ko lii kat waroo koon a def wala lii kat rafetut wala lii kat deesu ko defe nii ba mu xam ne moom wàcc na yoon bu fekkee dañ ko tooñ it nga dimbale ko ci jàppale ko ba mu mën a jot ci xàqam ji nga xam ne dañ ko koo xeeñ wala ñu nangu ko ci moom ci biir loolu tax na lislaam yoonal na ay xeeti jaamu yàlla yu bare bare bare yoo xam ne boo dee xool jubluwaay ba day delluwaat ci dimbalante ci biir jullit ñi yoonal na azaka azaka sunu boroom dafa digal ñi nga xam ne jox na leen dara ci man-man ne bu ngeen tolloo ci lim sàngam ci dat sàngam seen alal ji am ngeen am génn leen ci lu toll nangam jox ko ñi nga xam ne ñoo néew doole loolu kon dimbalante bu rëy la ndax bu doxee ni mu war a doxee ñi néewoon doole danañ dem ba seen néew doole dana wàññeeku bu baax a baax sunu boroom tamit yoonal na muurum koor nga xam ne ci mujjug weer wu ñu nekk lañ koy def loolu tamit lañ ci jublu rek mooy dimbalante am ba ñi nga xam ne dañoo seen man-man demewut noona su bisu Iid gi jotee ñu mën a yëg ne kat bis bi bisu mbégte la bisu bànneex la ba ñàkk gi leen yàlla na too duñ ko yëg ci ñoom yoonal tamit sarax muy loo xam ne wutulu ko waxtu wutulu ko jamono heure bu nekk nit ki mën naa saraxe la muy saraxe mën naa bari mën naa néew loolu lépp day dugg ci biir bunt bi ñu wax léegi muy dimbalante boo xam day am ci diggante jullit ñi ci jaam yàlla yi ah mu doon loo xam ne it lu lu lu am solo la te am wàccuwaay bokk na ci li wane ne am na solo mooy dafay dundal day dëgëral ruuxu dimbalante ci biir nit ñi maanaam nit ñi gëm ne benn lañ day tax nit ñi ñu gëm ne benn lañ man lu ma am moo xam lu mu mën a jëm ci wàllu man-manu yaram wala ci wàllu man-manu wërsëg wala ci wàllu man-manu xel damaa war a jàpp ne loolu man rek waruma ko jariñoo waaye dama ko war a jariñoo bindeef yi nga xam ne ñoom laa seqal àddina bi di dund niki noonu tamit dimbalante boo amee bokk na ci lii wane soloom mooy day tax waxtu wi nga xam ne daanañ ko dépassé ci luñ bëggoon def ci lu dul dimbalante waxtu wa day gën a gàtt lépp loo xam ne nii mbooloo moo ko def moo ko seq def waxtu wañ cay jeexal mooy gën a gàtt foofu ci loo xam ne ni kenn nit moo ko bëggoon a def kon danañu dimbale ñu gën a mën a gañe suñu waxtu la ca des ñu mën koo def ci leneen loo xam dana mën a am njëriñ waaye tamit li wane ne solo moom dimbalante mooy nit yàlla da ko bindee muy ànd ak nit ñi maanaam doomu aadama yàlla da ko bind munta wéetu moom kepp faw muy jaxasoo ak nit ñi ndax dafa am lu lu manqué loo xam ne nii ci nit ñi lay jóge jëm si ci moom nit ñi tamit am luñ manqué loo xam ne nii ci moom lay jóge jëm ci moom jëm ci nit ñi kon dafa nekk loo xam ne nii ak mott lente goo xam ne kenn munta mbàyyi morom bi doomu aadama munta toog xëy suba ba ngoon te soxlawut nit ak anam gu ko mën a soxlaa loolu ma wan ne kon dimbalante kon munta ñàkk waaye tamit dafay tax sunu doole day gën a yokk sunu doole day gën a yokk ndax dañuy mujj mel ni benn loxo nga xam ne sunu noon bu ñëw bëgg ñoo songu dafay fekk ñun ñëpp ñu àndandoo nekk benn su boobaa songum noon bi du mën a jàppandi ni mu ko bëgge ndax sunu borom nee na bu ngeen dee ànd rek seen doole di gën a yokk waaye nag lu ngeen gën di wuute di gën di teqalikoo rek su boobaa seen doole day gën a néew mu ne wala tanaza'u fa tafshalu bu leen xëccoo bu leen xiiroo ko ŋaayoo ndax loolu daf leen di jural ak dellu ginnaaw di leen jural ak néew doole njariñ ñi mu am nag bari na jeexeet yi bari na lool waaye na mën nañ cee tënk rek yenn ba ca jiitu mooy dana tax nit ñi yëg ne lu keneen nekk rek dafa mel ni yow yaa ci nekk sa mbokkum jullit bu nekkee ci naqar dafay mel ne yow naqar yow la dal su nekkee ci mbégte dafay mel ne yow mbégte mi ci yow la nekk te loolu bu amee nag doole ji day gën di yokku su boobaa kon réew mépp wala dëkk bépp dañu mujj mel ni dañu mujj mel ni benn nit ci tuubaa gi ci misaal dañu mujj mel ni benn nit ku fi am nattu bu ko yàlla teg day mel ne ñëpp la ko yàlla teg te su boobaa day woyof moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne jullit ñi ci xadis boo xam ne Nu'man ibnu Bashir moo ko nettali mu ne jullit ñi ci ni ñuy bëggante ak ci ni ñuy yërëmante ak ci ni ñuy doxalante ñeewante ci seen biir dañuy mel ni wenn yaram jenn jëmm jenn jëmm saa bu ci ab cër amee métit yaram yépp moo koy maase yëg loxo bi bu dee metti yaram mi du wax ne loxo bi rek mooy metti sama yoon nekku ci waaye loxo bi fu mu mettee rek yaram yépp koy maase yëg bopp bi bu mettee noonu bët yi noonu cër bu metti rek yaram yépp moo koy maase yëg mu ne jullit ñi nag noonu lañu war a mel ci seen biir ñuy bëggante yërëmante di bàyyi ku nekk bàyyi xel sa moroom loolu nee na bu amee rek lu baree bari ak jëm kanam day daal di am waaye tamit day waral bokk na ci njariñ mi am mooy bëggante day am bëggante mooy ku nekk li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa moroom lu baax loo yéene sa bopp rek danga ko yéene sa moroomu jullit waaye safaan boo xam ne yéenewu ko sa bopp it doo ko yéene sa moroomu jullit loolu moo tax Sëriñ Tuubaa bi mu ñaan ci Matlabu Shifaay mu bokk ci yim ci ñaan ne waj'al qulubana ala tawaadudi bila tanazu'in wala taxaasudi mu ne yow yàlla maa ngi lay ñaan nga def sunu xol yi ñu bëggante te bañ di xëccoo bañ di iñaanante mu teg teen xatta nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina zahidin ba nga xam dañu mujj nekk ay jullit yu ragal yàlla te gëm yàlla te sellal te dëddu àddina bokk na ci li muy juru ci ay njariñit mooy ak jëm kanam mbooloo mu ànd di dimbalante seen biir seen doole day gën a yokku seeni jéego day gën a dox waaye tamit seeni projet seeni yëngu day gën a jëm kanam ndax wolof yi dañuy wax ne mbooloo mooy mbooloo mooy doole mbooloo bu ñu àndee rek seen jëm kanam day gën di yokku waaye bu ko nekk beroo ci sa ruq loolu seenu dox mën naa bañ a demee na mu war a demee waaye tamit dafa ñuy dimbale it ci ñu mën a bokk mën a mën a séddoo ay xam-xam ndax xam nga ne mbooloo fu ñu daje xam-xam yi ak man-man yi day wuute am na koo xam ne yàlla may na ko ci wàllu xel mu rafet am ci koo xam ne yàlla may na ko mu am xam-xamu diine am ci koo xam ne yàlla may na ko mu am xam-xamu addina am ci koo xam ne yàlla may na ko mu mën a lijjanti lu bari ci addina bu ko defee yooyu bu àndee nag soxla bu am rek. ku nekk da cay génne xalaatam bu ko defee ku nekk day jariñu sa moroom ci xam-xam bi ko yàlla dénk kon ànd day daf daf ñuy jural ñu mën a séddoo kenn ku nekk man-man bi nga am nga mën koo séddoo ak sa mbokkum jullit waaye tamit dafa ñuy dimbali ci coono bi ñu waroon daj ci menn mbir coono bi dañ koy bokk te xam ngeen ne coono bi buñ ko bokkee rek liggéey bi day gën a woyof day gën a yomb bu ñëwoon dañuy lal barab bi ñu toog ne na ko ñaar nit def danañ ca daj ci coono ci seen yaram loo xam dana diis waaye nag bu ko mbooloo mi séqee nag kii jàpp fii kii jàpp fee kii jàpp fee dañ mel ne kon diggante bu gàtt danañu mën a liggéey li ñu liggéey te suñu yaram du ca yëg benn coono bu àgg ci benn dayo bi waaye tamit day ñu dimbale ci ñu mën a ñu mën a séddoo suñuy alal ah bu fekkee ne ñun ñoo ànd bokk ci gox bi wala ci dëkk bi wala ci quartier bi wala ci koñ bi ki ma ki am alal bu àndeek mbooloo mi alal ji mu am da koy mën a séddoo ak mbooloo mi mu àndal këlee am tamit même lu am bëriwut waaye mu mën cee génn di ko mën a bokk mbooloo mi loolu yaakaar naa ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la waaye tamit dañuy dimbali ci ñu mën a sori bëgg sa bopp nga xam da ngay jàpp ne lu baax rek yow rek yaa ko yeewoo fu njariñ teewee nga jàpp ne yaa ko yaa ko war a moom bu lu metti ñëwee nga bàyyi ko nit ñi dimbalante bu fekkee mi ngi am rek nit ki day sori loolu ndax njariñ lu teew rek day jàpp ne njariñ li kat moom moo ci war a gën a néew la sax da ko war a sëq ak mbooloo mi bu coono amee dafa war a jàpp ne sax coono bi am muy liggéey bu metti moo jàpp ne moom moo ci war a ëppale nit ñi bokk na ci tamit li muy jariñ mooy dañuy jëfandikoo xel yu bari mbooloo bu ñu àndee xel yi day wuute dañ ci gis xel yu kawe lool di xalaat fu kawe lool gis yoo xam dana diggu dóomu gis yoo xam dana xaw a wàcc bu ko defee nag dañuy lu luñ teg ci taabal ji lu nekk rek xel yi dana génn bu ko defee danañ ko jëfandikoo ci ay xel yu bari te su boobaa ci lay gën a mën a sax waaye ci lay gën a mën a ci lay gën a mën a dëgër moo tax boroom xam-xam yi daanañ wax ne ki am xel dëgg-dëgg mooy koo xam ne dafa jël xeli boroom xam-xam yi boole ko xelam mooy dafa jël xalaatam boole ko xalaati boroom xam-xam yi kooka néewaana lu muy juum wala bu juumee tamit njuumte la du metti te loolu kilifa yi yi koy def xam nañ xam nañ njariñ li mooy ñu jël seeni xalaat di ko booleeg ñoo xam ne am nañu xel dañuy gis ne li ñuy tàbbi ci ay njuumte du bari waaye nag saa yoo xam ni nag sam xel rek nga nga nga bedd ko yow dong nag loolu su boobaa njuumte da ca yomb ndax mën ngaa jàpp ne nii la te fekk na demagul noonu dimbalante googu danañu yóbbu ci sunu boroom di ñoddi yërmandeem di ko jegeel jaam bi saa bu ñu dee dimbalante ci sunu man-man ci li ñu am ci sunu may yi ñu yàlla may ci xeet yu mën a doon sunu boroom daf ñu ñoddil yërmandeem daf ñu ñoddil cofeelam daf ñu ñoddil ngërëmam waaye tamit nag saa bu amee nag dana tax ñi néewoon doole ci askan wi danañu mujj di dund ci tolluwaay yu baax wala yu gën a baax yi ñu nekkoon bu dee koñ bi ñëpp dañoo mànkoo nekk benn ah koo xam ne dafa néewoon doole daana xëy léeg-léeg du am lu mu jëfandikoo waa koñ ba xam ne diw sàngam kat jamono yi xaw naa ami jafe-jafe ndax doon na liggéey te liggéey bi doxatul kenn ku nekk di ko bàyyi xel ah ab diir bu gàtt rek mu mu mën a am sax liggéey beneen liggéey wala mu am lu mën a jàpp loo xam ne dana ci man di suutaroo moog njabootam loolu yaakaar naa ne am na solo lool ci njariñ yi nga xam ne ab ànd di dimbalante ci lu baax danañu ko jural tomb bi ci tege mooy ci fan lañ koy def anam yan domaine wala yan wàll la ñu mën a dimbalante ndax bu ñu dimbalante rek yaatu na waaye dafa am ay ay wàll yoo xam ne ca la ñu mën a dimbalante ci cadre l'islam ba ca njëkk mooy ñu dimbalante ci woote jëme ci yàlla ñuy dimbalante ci woote jëme ci yàlla ak dimbali diini lislaam sunu boroom wax na ne yaa ayyuha alladina amanu kunu ansaaran lillahi kama qaala isa bnu maryama lil xawaariyin man ansaari ila allah mu ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen dimbale yàlla te dimbale yàlla mooy di ko wooteel ci lislaam di jàppale diine lislaam ji di ko xemmem loolu nit ñi di ko leeral nit ñi di gindi nit ñi jëm leen ci lislaam foofu tamit bunt bu ñu war a dimbalante la mooy ku nekk ci yoonu caaxaan ñu dimbalante ak moom fexe ba ñoddi ko jëm ko ci lislaam koo xam ne mu ngi ci lislaam it waaye xaw na koo lënt ba tax muy def yu dul noonu tamit ñu dimbalante ak moom fexe ba ñodde ko ba mu gën a tege ci yoon loolu ci bunt yi nga xam ne des na fi dimbalante ci lay bokk ba ca tege mooy mooy ñu dimbalante ci fexe ba jaamu yàlla gi sax fexe ba jaamu yàlla yi ñu yàlla sant ñu fexe ba loolu sax te loolu mooy ñu ci laabirante ki war a jàngale di jàngale ak anam ga mën a jàngale nag moo xam day toog ci daaraam di jàngale wala sax day toog di def ay waxtaan di ko tasaare wala sax nit ñi di ko laaj lu leen lënt ci diine mu leen koy leeralal loolu lépp day dugg ci buntu dimbalante ci wàllu fexe ba jaamu yàlla gi mën a sax mooy nit ki mën nekk ci am jaamu yàlla mën caa sax waaye tamit képp ku sàgganit ñu dimbali la fexe la ba fàttali la ba nga ñëwaat ndax doomu aadama moo bindoo noonu léeg-léeg mën naa jaar ci yoon topp jàll ci yoon wi waaye yàlla nattoo ko mu jekki-jekki mel na ku xaw a sàggan bu ko defee day aajowoo ku ko labiré aajowoo tamit ku ko fàttali bu ko defee mu mën a dellusiwaat ba ca topp mooy dimbalante ci wàllu sàkku xam-xam dimbalante ci wàllu sàkku xam-xam wax nañu Omar dafa amoon ku mu jàpp woon comme mbokkam yu ko ñu wax Awsu ibnu Xawli nee na dañ ñoom ñaar dañu doon dimbalante ci wàllu xam-xam ci wàllu jàng xam-xam nee na lu Awsu dégg rek ci xam-xam bu ñëwee da ko koy nettali moom mu jël loola moom Omar tamit lu mu jël ci xam-xam dégg ko feneen it bu ñëwee nettali ko Awsu mooy lu mu am ci xam-xam rek dana ko séddoo ak Awsu ci ci awsu moomu waaye awsu lu mu am ci xam-xam dana ko séddoo ko Omar kon dimbalante ci xam-xam mooy loo loo xam ci xam-xam nga fexe ba loolu tasaaroo loo am ci xam-xam nga fexe ba loolu tasaaroo bañ ko yemli sa bopp rek loolu ba tey ci buntub dimbalante la am ci la bokk ba jo topp mooy mooy dimbalante ci fexe ba ak réer jóge fi fexe ba ak réer jóge fi ndax xam ngeen ne réer saa bu tasaaroo ci aw xeet rek xeet wala cay xam kenn mënu xam lu mu doon moo tax Sëriñ Tuubaa bi di wax ci Maghâliqun Nîrân ne dañoo tolloon ci ay jamono joo xam ne lislaam dafa xaw a far sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel na lu xaw a far te lépp dara waralu ko lu dul réer gu metti réer bu xasee songu aw askan mën na leen indil ay lool yu baree bari bokk na ci ci bunt yi ñu war a dimbalante it mooy dimbalante ci digle lu baax ak tere lu bon ki war a digle nga xam ne xam na lu baax xammee lu bon mu fexe ba fu mu toll saa bu gisee lu mu war a digle mu digle loola saa bu gisee lu mu war a tere mu tere loola ndax loolu mooy tax askan wi mën a baax mooy tax ñu mën a sori lu leen di màbbu wala lu leen di alak loolu koo xam ne ni yàlla may na ko ci man-man nga xam ne bu waxee am ñu def war nay digle kem kàttanam war nay tere tam kem kàttanam saa bu digle nag wala mu tere nag loolu moom jaanam wàcc na su mbooloo mi defee baax na su mbooloo mi defute mu xam def na mu war a def bi ci topp mooy ñuy fexe bay dimbalante ba suñuy xol ñun jullit ñi di gën a am ak tàppoo dimbalante ba xoli jullit ñi gën a am ak déggoo gën a am ak tàppoo mooy lépp loo xam ne nii luy tax nit ñi di bëggante la ñuy def loola lépp loo xam ne tamit day tax nit ñi di bañante ñuy wattandiku loola loolu it lu am solo la ci bunt bi domaine bi ci topp mooy ñuy dimbalante ci fexe ba nit ñi ñu leen jox seeni àq di leen jox seeni maanaam di leen di di dépenser ci ñoom moo xam suñu mbokk yi jege ñaale la wala ñi ko soxla la te yàlla dugalul seen man-man demee noonu loolu mooy képp koo xam ne ni aajo woona te nga mën koo lebal nga lebal ko ngir yàlla lebal ko ngir yàlla saa bu jàppandee mu fay la ndax suñu borom nee na dee leen leble leble gu rafet mooy koo lebal nga bàyyi ko ba mu am soo amee fay la soo ko mënee jégal ngir yàlla nga jégal ko ndax dafa aajowoo kon da nga koy dimbale niki noonu tamit ki nekk ab jirim yàlla dogal way juróom teel a làqu mu soxla ku ko saytu soxla ku ko dimbale kooku tamit nga fexe ba gàddu lépp loo xam ne ni mooy tax ab dundam mën a ñoŋ loolu bokk na ci dimbalante léeg-léeg tamit jafe-jafe yi am ci àddina bi léeg-léeg xew-xew am ci benn dëkk wala ci benn barab mbooloo dañu fay loru nga fexe ba dimbale ñooñu léeg-léeg nawet ñëw ndox mi dugg ci barab yàq fa ay kër yàq fa alali jàmbur bu ko defee ñooñu nag dañuy aajowoo ku leen dimbale loolu nag julli ñu ñoo war a taxaw ngir mën a jàppale ñooñu bañ mën a génn ci xat-xat yooyu wala ku yàlla def mu am mu mu def accident ba yaramam am gàllankoor mu aajowoo taxawoo ci wàllu faj aajowoo taxawoo ci wàllu nekkinam ci barab ba mu nekk ak i njabootam foofu tamit dafay aajowoo ñu dimbale ko wala lakk am nit koo xam ne lakk barabam dafa lakk moo xam këram la wala waruwaayam la wala barab ba muy liggéey la kooku tamit dana aajowoo ñu dajoo ngir dimbale ko ba mën a taxawaat loolu nag lu mat a bàyyi xel la rawatina jamono ji nga xam ne da ngay gis ni nekk ci ay xat-xat yu métti au lieu que nit ki taxaw di ko dimbale waaye la muy def mooy di ko filmer ak di ko photo di ko tasaare nit ku def choc nga xam daanaka mi ngi ci tolluwaay yu xat yu métti lool nga taxaw di ko filmer wala ni nga di ko photo loolu wax dëgg yàlla bokkut ci xolub jullit loolu lu mat a bàyyi xel la bokk na ci ñu war a dimbalante mooy ñu dimbalante fexe ba amal ay projet yoo xam ne day amal nit ñi njariñ day amal nit ñi njariñ nit ñi li ñuy soxla bari na danañu soxla ay barab yu ñuy fajoo ñu fexe ba dimbalante ci suñu biir ba barab buñ mën a fajoo am buñ fexee ba mu am tamit ñu fexe ba nit ñi mën faa àgg ba ku soxla ci yaramam ngir faju bu demee ci hôpital bi mu mën a àgg ci faj mi ci anam gi gën a mat loolu tamit lu am solo la waaye buñ fexee ba defar barab bu ñu fajoo tamit ñu fexe ba nit ñi mën koo jariñu niki noonu tamit ñu xal ñu xool bu fekkee ne dañoo aajowoo ndox dañoo aajowoo ndox ñu def projet boo xam ne nii day tax nit ñi mën a am ndox bu fekkee am nañ ndox waaye ndox mi taxul mu mel na mu war a mel ñu fexee def ay pexe dimbalante ngir ndox mi gën a mat gën a sell gën a mucc ci ayib niki noonu tamit bu ñu aajowoo jàkka ñu fexe ba defar jàkka ci koñ bi bu ñu aajowoo ay jàngukaay ñu fexe ba defar ab jàngukaay ci barab bi te da ko saytu ba waa koñ bi wala waa dëkk bi mën koo jariñoo ni ñu ko war a jariñoo bi ci topp mooy mboolem ñu bokk mennum réew ñu fexe ba ñoom seen biir waa réew mi ñuy dimbalante ndax fi mu ne xam ne dimbalante day loo xam ne day boo ko dee xool day niru lu jafe waaye lu yomb la mooy ku nekk bu génne li man rek mu daal di sotti dëkk bu nekk rek bu ko nekk bu ko nekk génne sa man-man rek léegi te dëkk bi dox te duñ sonn te loolu yaakaar naa projet yi nekk ci dëkk bi war nañ ci war nañ ci aw yoon ci loo xam ne nit ñi ñooy génne seeni man-man rek ñu sottal lu bare bare loo xam ne bu ñu toogoon mën nañoo toog lu yàgg te loolu du sotti bi ci topp mooy ay dëkkandoo yéen ñi mu tàmbalee ci ñi bokk genn kër ñu fexe bay dimbalante kër gi ñëpp luñ maase yem ñëpp luñ maase yem il faut mu am ñu tane ñi tane nag bu ñu geesoo ñi tane ñi ñu tane rek bu ko defee dana am lu bare bare lu saafaraw bu ñu génnee ci dëkkandoo yi dem ba ci quartier bi bu ñu demee ba ci quartier bi dem ba ci dëkk bi dem ba ci région bi muy law ba génn ba ci ba matale réew mi loolu yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la dal yu bari la waaye mën nañ cee tënk rek yooyu bi ci topp ci tomb yi mooy yan moo ko mën a gàllankoor yan moo mën a gàllankoor ba dimbalante dootul mën a am ni mu war a amee ba ca jiitu mooy cofeel gu manqué ci diggante nit ñi maanaam nit ñi bu ñu tàmbalee iñaanante wala ñu tàmbalee soxorante wala ku nekk di boddiku sa moroom wala muy xeeb sa moroom loolu la muy jur rek mooy dimbalante du am te dimbalante bu amul nag léegi néew dool di daal di am ñu bari dañ ko daal di yëg ci askan bi kon dañuy fexe ba mbëggeel gu yokk nit ñi gën a bëggante waaye su mbëggeel gi dee wàññeeku rek su boobaa dana doy waar ci nit ñi lool ba ca topp mooy bëgg sa bopp maanaam nit ku nekk jàpp ne yow rek yaa fi war a nekk waaw lu ñu def ci lu baax rek yaa ko war a def waaye yow lañ ko war a defal loolu it bu amee ci biiru aw askan dimbalante dafa mën a am ndax ku nekk sa bopp rek ngay lijjanti waaye doo lijjanti keneen bi ju topp mooy soxor soxor mooy nit ki am dara nga bëgg mu deñ comme ni ko Serigne Touba waxee ci Masaalikul Jinaan mooy nit ki am xéewal nga bëgg xéewal googu deñ mu taqale ko ak moom ñëw ci yow wala sax mu taqale ko ak moom jëm ci keneen xaala moo tax Serigne bi wax ne xubbu zawali ni'matin an muhtadi huwa al musamma indahum bil xasadi xéewal gi jaam bi am nga bëgg mu tàggoo ak moom ñëw ci yow loolu la ñu tuddee ki ñaan kii am na place wala am na wàccuwaay bu mu am nga bëgg fexe mu ñàkk wàccuwaay boobu wala boobu mu jóge ci place boobu yow nga dem fa loolu bu amee rek dimbalante dootul amati. niki noonu it ñu wuute ay jubluwaay waaw mbooloo moo xam ne bokkuñu ay bëgg-bëgg kee li ko bëgg li ko ñor mooy nangam kee la ko ñor mooy nangam ñooñu bu ñu àndee tamit du sotti ndax ku nekk la la ju la la tax a jug rek loolu la moo la ñor. leneen ñu itteelu la kon faaw dañu bokk bëgg-bëgg ñun ñun kat liñ bëgg mooy fexe ba dëkk bi kenn du fi sonn wala ñu fexe ba sunu askan wii kat kenn du fi tawat di am jafe-jafe faju wala kenn du fi soxlaa jàng di am jafe-jafe jàng wala kenn du fi soxlaa toll ci liggéey di am jafe-jafe baraboo liggéey kon il faut ñu bokk jubluwaay saa bu ñu wutee ay jubluwaay rek mooy wane ne kon lañ bëgg du sotti. ndax ku nekk day ñoo di jëm sa bopp li nga xam ne nag xam naa moom la ñuy mujje mooy teggin yi nga xam ne nag faaw ñu koy sàmmonte faaw ñu koy sàmmonte ci bu ñu bëggee dimbalante mën a am ni mu ware ba ca jiitu mooy ñu ñu ñu ñuy diisoo sottante xalaat maanaam ñu diisoo di sottante xalaat mbooloo bu ñu àndee di waxtaan seen biir nga xam ne li ñuy wax kenn du am looy ragal wala nga am looy rus waaye day fekk yow sa yéene rek mooy mbir mi jàkk bu ko defee xalaat boo am nga génne ko keneen am génn xalaatam keneen génn xalaatam léegi ñu boole xalaat yi xalaat bu nekk ñu jàngat ko benn par benn xalaat bu ñu gis ne baax na ñu jël booba ak ku ko mën a wax ka ko wax mën naa wax mën naa doon ku kawe ca mbooloo ma mën naa doon tamit koo xam ne taxul mu kawe ca mbooloo ma waaye ñun la ñu xool rek mooy xalaat bi na jub kon ñu fexe ba tàmm di sottante xalaat mbir mu nekk ñu ci waxtaan ku nekk génne xalaatam ko defee ñu boole xalaat yi benn benn bu nekk ñu xool ko benn par benn ñu jël ba ca gën a baax wala ñu jëlee ca gën a baax. bokk na ci teggin it ñu jël ruuxu dimbalante wala ruuxu mbokkoo fexe ba mu tasaaroo ci biir ci biir ci biir mbooloo mi maanaam mbooloo mi la ñu fexe ba ku nekk fexe jëflante ak sa morom jëflante bu rafet kenn ku nekk ci mbooloo mi fexe di jëflante ak sa morom jëflante bi gën a rafet loolu xam nga moo lay def nga jàppe ko comme sa mbokk nga jàppe ko comme sa mbokk moo xam ne yéen a bokk lépp jëflante moom jëflante ci wax waxin wu nooy waxin wu rafet jëflante jëflante bu rafet yéene ju rafet ba mu jeex bi ci topp mooy ku nekk ci mbooloo mi jox cër moroom ji ku nekk jox cër moroom jox ko worma xam nga doomu aadama yàlla ko binde noonu doomu aadama moom saa boo ko wàññee saa boo wàññee darajaam rek mu daal di gis boppam waaye ku nekk nga jox ko darajaam rek daraja jam yelloo bul xeeb kenn ku nekk rek jàppe ko nit te nit ci boppam rek moo am teraanga moo am worma nga wormaal ko ngir lim nekk nit bu ko defee nag la ca tege nag moom nga xool cër bi mu am nga jox ko cër bu toll ak ba mu toll ba mu ba mu am kon fexe ba ku nekk di wormaal sa borom waaye tamit fexe ba wormaal wormaal man-man yi maanaam mbooloo bu ñu séqee di ànd ab liggéey ñu fexe ba ku nekk ñu jox la yow la nga man waaw man-man bala yàlla dénk ñu jox la loola ndax loola ca ca ngay gën a mën a liggéey ci nga gën a mën a taxawee ngir mën a dimbale xeet wi ki mën a jàngale dañ ko bàyyi muy jàngale ki nga xam ne maanaam campagne lay man wala publicité wala tasaaree xalaat bi loolu la gën a man ñu bàyyi ko mu féete wa loola ki nga xam ne bu ñu soxlaa lijjanti dara moom la gën a man ñu bàyyi ko loola ki nga xam ne bu ñu soxlaa génn alal la man ñu bàyyi ko ak loola kon ku nekk ñu xool la nga man ñu féete la loola bu ko defee dana tax liggéey bi gën a yomb tey dina gën a jàppandi bi ci topp mooy mooy wàcce sa bopp maanaam ku nekk ci nit ñi dafay jàpp ne moom moo gën a suufe day jàpp ne moom moo gën a suufe ci nit ñi lu ñuy indi ci loo xam ne luy niru daraja la nga ne jox leen ko diw wala bàyyi bàyyi jox leen seet leen keneen yow doo ko nangoo jël ku nekk day jàppe boppam moom lu ñu indi ci daraja wala luy niru yëkkatiku nga ne ah lii kat nañ ko jox diw wala seet leen keneen ci mbooloo mi nga xam ne yow da nga jàpp ne yow yeyoo lool donte xam nga ne man nga ko sax yeyoo nga ko tamit waaye nga wàcc sa bopp ndax sunu borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ku wàcce boppam ngir yàlla yàlla yëkkatiku ku wàcce boppam ngir yàlla yàlla yëkkatiku su ko defee nga xam ne su boobaa nag moo tax duñu mën a ràññale duñu wax ne kii dafa bokk ci dafa kawe kii dafa suufe déedéet dañuy jàpp ne ñoom ñëpp rek ñoo bokk benn benn groupe bu ko defee léegi mooy tax ñu mën a liggéey ni mu waree waaye bu njëkkatee ñenn ñi wàcc ñenn ñi rek mooy war ne kon ñenn ñi bu ñu génnee xalaat ñii duñu mën a wax te su boobaa loolu mën naa gàllankoor ñoom liñ bëgg a liggéey te du sotti ba jo topp mooy ci teggin ñu war a sàmmante ci bu ñu dimbalante mooy képp koo xam ne def na man-manam na ko def ngir yàlla rek na ko def ngir yàlla bu mu ko def ngir ëllëg mu taxaw ne man maa defoon nangam man maa def nangam bu lu ko man fii mbooloo mi àgg wala fii dëkk bi àgg wala fii kër gi àgg du fa àgg ndax suñu borom nee na yaa ayyuhal ladina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adha loo def ci lu baax nee na bul taxawaat ni man maa ko def ndax su boobaa day mujj mel ni koo xam ne ni day jël alalam bi ko dépensé te di ko njisal dafa mel ne nga fekk ak doj wu rattax nee na nga suuf nekk ca bu taw bari ñëw rek yóbbaale lépp bu ko defee dem bi dara du fa nekkati mu ne kon ku def man manam ci ak ci yaramam na fexe ba ëllëg bu mu toog fenn naan maa def nangam. niki noonu xalaat boo amee xalaat bu rafet bañ jëfandikoo ko ba mbooloo mi gis njariñ li bul taxaw fenn ne xalaat bi tax mbooloo mi dox man maa ko génne wala xalaat bi ñu def ba tax dëkk bi àgg fi mu àgg wala kër gi àgg fi mu àgg wala daayira bi àgg fi mu àgg wala groupe bi àgg fi mu àgg man maa ko def bul def loolu ndax boo defee loolu rek yàq nga lu bare bare ci liggéey bi nga defoon niki noonu sa alal wala sa daraja kon lépp loo ci def ci mbooloo mi rek na nga fexe ba loolu nëbbu bul taxaw fenn man maa def nangam wala bu du ko nag man lii du am sunu borom nee na qawlun ma'ruf wa maghfiratun xayrun min sadaqatin yatba'uha adha nee na wax ju baax ak jéggale moo gën sarax boo xam ne nii la cee topp moom ngaañ lay doon ne nit ki ñëw nga wax ko wax ju rafet sax nee na moo gën nga jox ko ba pare tegal ko ci wax joo xam ne da koy def ab góom ci moom aw xas lay nekk ci moom wala dana métti ci moom lool. ba ca topp ci teggin yi mooy buñ la dee laabiire nga nangu ko xam nga laabiire mooy xelal la ah lii kat boo defoon nangam moo gën a baax wala lii ngay def kat nii nga koy defee nii kat dafa mel ni ku seetoon nangam ci lay gën a baax kon nangu ak laabiire bu ñu lay laabiire nga nangu ko loolu bokk na ci lii tax dimbalante mën a am waaye boo bëggee gëm sa xalaatu bopp rek loo xalaat nga jàpp ne loolu rek nga war a def beneen xalaat wala beneen laabiire wala beneen conseil doo ko diglu loolu mën naa indi mën naa indi. ay ay gàllankoor bu baax a baax kon dafa mel ne kon ni ñu war a dimbalante ci lu baax noonu la ñu war a fexee nag ba bañ a dimbalante ci loo xam ne ne safaan bi la mooy képp koo xam ne nii gis nañ ko muy dox ci lu bon ñu bañ a ñu bañ koo dimbale ngir loolu sotti koo xam dañu gis ne da yàq dëkk bi da yàq gone yi ci jikko yu bon wala indi na fii daal jëf joo xam ne ni mën naa yàq gone ci seen njàng wala mu yàq gone ci seen gëm-gëm wala mu yàq gone ci seen xel loolu dañu war a dimbalante ngir jëli fi loola bu nekkee ci ab koñ xam ne kat koñ bi kat diw moo fi nekk di jël yëfi jàmbur wala moo fi nekk di kar nit ñi di leen gaañ wala mu leen di jël jël seen alal ci doole ñu dimbalante ngir mën a saafara loola mais waruñ koo nëpp nëppal noonu rek bàyyi noonu. loolu yaakaar naa ne lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel la ci liggéey bi kon day mel ni rek yaakaar naa ne buñ ko doon tënk rek mën nañ koo tënk ci tomb yooyu ñu waxtaane léegi rek xëy na thème bi gën naa yaatu gën naa am solo waaye xataay bi la ak bette gi rek moo tax ñu mën cee tënk lu tol noonu waaye ñu ngi jégguluwaat bu baax a baax di doglu ngànt it ci niñ ko joxee ndax des na des na lu bari lool mënoon naa gën a rafet noonu ñu gënoon a waaj waaye lu luñ ci jàpp rek lu mu gàtt gàtt rek baax na yal na yàlla def ci barke def ci tawfiq di sant bu baax waa daayira bi di sant bu baax itam ñu doon teewlu bu ko defee ñu taxawlu foofu rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.